Mbera, mbera, mbera, mbera, mbera sama njaboti, mbera. Warrior fighter mbera the victorious kid. Xale judu de tau judu don kanyant. Mbera sama njabot. Sénégal Gambia forimola wato sita ah kusanum kone jipuru e komine yone lupe yeti Sénégal yo bule ajuma kiyo ayompo finkin le tonno kendo ejay epure ejaw bule le tonno kendo bule nu le tonno kendo da bamban kabiri mbera sama njaboot ki Mbera sama victorious kid, the warrior fighter, Judut Ganyant, the divine children of the nature. Sama njaboot gi terminus gannaayu fagaru vigilant njambaarte ku nekk na nga xam ne carrément nee naa leen xeex bi yàgg naa ne ci fa la ñuy jëm waaye di leen xamal ne le maccido yi dañoo faible dañoo wik ak seen terroriste yi seen agresseurs yi seen tëg yi ñoom lépp lu ñu am ci gànnaay foofu si ci boppam dafa jaxaso jaxaso ci nen lañu toog yëngatu bi ñoom seen bopp man seen mama maal ni challenge ñoom bu fekkete ne am na tamit feneen fu ñu yaakaar pour wéeru I don't know que ñoom xamuñu wéeru atémit ñoom xam xamuñu ko parce que ñoom dañoo ñëw ñi ne ñoom ñooy sàcckat xaalis yi ñoom ñooy jël doomu Sénégal alal Sénégal parce que ñoom ñoo koy contrôler ñoo ko war a jox askan bi jox ñu leen ko ñu naan comme que lii Sénégal ko moom ñax ko Sénégal la ñoom nañ ko sàcc féetale ko seen ñaaw ñaawteef ñàkk bi nga ñàkkul fekk ñak borom tek sa loxo dalay lak parce que dafa tang jir momoko du lak kaka mom mais kaka momu dalay lak lakk fa lañu toll sama njabot bi lu jamaat dine ne agaanaaw panagaani lam lañ yag wax rek muso len gis ki dox deug fen diko dak amu mi do amul fen fen amul dëkk fen amul sa numéro matricule fen amul bés ci atémit ci divaañ sax fen bokk ci ci divaañ fen bokk ci fen amul dara lu mu dominer fen benn air bu ndaw la bu mel ni bii wër di déglu képp ku ko woo rek ci yow lay dëkk mu am dëkkuwaay am fa muy fatoo fen atémit sa boole ko ci agenda am parce que mosoo gis kii fen ba am ci ndam déedéet kooku du nelaw du am afiya du toog xelam daal du mën a yootu dara ba mu am ko ci nu mu ko bëggee déedéet kooku foo ko fekk mu ngi jànnaxi di xalaataat nan la war a def ba génn ci fen gi mais pour moom dafa war a gën a fen pour génn ci fen te fen li nga koy gën a ëttal raq muy gën a dal parce que amul dëkkuwaay amul numéro matricule amul àll amul géej amul fenn amul sa amul e biir sama njaboot gi nee naa leen yéen da ngeen a tëj seen numéro dafa mot te soo leen xoolee gars yi ni ñuy demee rek tout le temps seen faveur la am na yoo xamante ne du ko waxagum parce que ñu dañoo def li ñu def ba pare te divan daf ñoo woon ba pare kusaanum dañ ñoo woon ba pare atemit sa lingo la sama njaboot bi nee naa leen ku dem ba xamatul lu muy def comme nu ko gis naa Pape Alé Niang fa may expliquer ñëg waaw mag bu rus day ñëg comme que dañoo jëloon ñàkk Sénégalais yi def ko nag arme de guerre rey ay Sénégalais indi dem engagé ay prisonniers dëkk yi nga xam ne dem seen prison yooyu jënd prisonniers dëkk yooyu indi leen jox leen ay gànnaay ñiy rey sénégalais yi te ku ko def du animaux du keneen ak kenn lu dul doomu sénégalais couple jëkkër ak jabar dañoo ëmb juróom-ñaari weer puus xam nu doom di mel xam nu doom di ñëwee ak jumbaxom jóge ci ndeyam ak ànd bu doom bu ndey di mu protéger doomam ñi jël loolu fekki ay doom sénégalais seen bopp yi leen deful waxu leen tooñu leen xale yi sénégalais dox seeni dëgg ñi dem engagé ay ñeneen jox leen ay gànnaay ne rey leen dek rey dek jaawale ne ñi ngay rey yow indoo leen sàkkoo leen yow Macky Sall yaa Marième Faye Sall yow ñooñu sax ay junni junni sénégalais yi nga rey ñooñu ñoo tax tey nga am fit toog ci kër gi nga xamante ne seeni ancêtres yi ñoo ko liggéey te fay ñu leen fay leen seen xaalis fay leen sax seen liggéey bu ñu ko def yow li li ñoom lu ñu tooñee sax sénégalais yi dafa garaaw te toog ñu sax di calculer the numbers at first yow ñaari manda nga laaj kon sénégalais te ya ko wax ya ko ñaan até mit nga ñaan ko say ansa sa ñu tegal lako légui yow nga paré ngay dem ak sa jabar amo lo jox sénégalais amo lo len may pour remercier len nga tegal len ay këll këllaati këll direct sa jabar simb gi boroom silpi mbakk yi di nas ay bopp escalette takk ko ay caq parce que or moom comme ni mu koy amee mooy porta porte dem ca naar ya kattante bay bëgg a dee manque day bay bëgg dee ba rek ñu jox ko ay or no problème mais deret gi muy muucu ay yuur doomu jaama di ka nas def ko nag kurusam comme day mbëkk rek di compter ñun dañoo gëm xam ne atemit divine mu créé this daka créé ci uufum képp noo kololaan ak ci ngemb ay doomam yi di leen gunge yéen mi gëmul nag ne atemit am na ngeen gëm seen deret seen nag ak béy ay gëléem ay sarax fee suulal fële def yéen mi gëm seen li ngeen gëm mënoo leen taxaw jàkkaarloo sa ak divin ak surtout doomu àll gi ñun ñun ko saanu mag nga xamante ne ñun ñun lépp lu ñu wax ateen mi te luñ ko ñaan xam nga lu mu wax tegal naa leen ko bu yàgg il suffit que nga demande ko rek ñun doomu àll nga xamante ne weñ sa dañ ko considère lépp liy nooy nga am bët loolu divine créativité la dañ ko jox respect di leen di protéger newoon naa leen du ñu defantax yéen ci ay dem indi ay jaasi di gor déedéet waaye dina leen wan ni ka bu ñu am ci doomu ancêtre ñun suñu ñu ñun di original doole gu ñu am dina leen ko won yow ay yompo ak sa njaboot gi Marème Faye Sall seen équipe boobu ak ñépp sa gàngoor gi nga àndal wadeeva appeeru xaw ma appeer xaw ma bennoo bokk tas berno deug sen nday yeen ñepp ngeen ko tuddé je ne sais pas match do équipe match do bobu yeen yena tagoto bu yag yena né deux mandat rek yeen da ngeen ko wax ngeen claim ko atemit ngeen claim ko sen ansas, ngeen claim ko sen esprit taxit ba ngeen ñëw fekk sénégalais amone li ngeen ni gërëmé remercier ne bàyyi bàyyi yëkkati loxo bu nice ay deret jàpp ay doomu jigéen def leen comme nu mu leen neexee comme ci ñàkk gëma dina atee mit mooy defar mooy kii yëpp tamisap actuellement nii nee naa leen dernier xeex bi sama njaboot gi ñoo koy xeex yéen ak atee mit ak ansa say fa ngeen toll xam nga nee naa leen dama naan dégg ngeen naan xaw nga 17 millions Sénégal ma ne forget that number 17 millions Sénégal man nomba boobu ngeen waxte mus ma ko gëm sénégalais kese ëpp nañu milliard because you never know parce que monde visible bu ngeen gis nii monde invisible yéen gisoo leen ko kan mooy conté ñaata nit a nekk ci dëkk loolu yëpp stupidité la colonisation bu la nee waa fii moom juróomi nit a fi nekk ñun divan mus ñu ko gëm ak loo jël jël doomu sénégalais yi def sa propagande daleen dugal ci ay gaal rey leen pour yow daal non c'est tellement li sénégalais musta expérience kenn mënul gëm ne sa soxor ak sa ijot net maccudowaas bu nga nekk yaax sa jabar maccudo gu nga juddoo depuis say juróom-ñaari maam yenn seen loxo yi doo du yuuxu bu ñu gisee lu xonk rek yenn seen loxo yi raam kenn mënumaa gëm ni que sa idiotness sa stupidité yow Macky Sall sa ñàkk xam sa bopp gëmm di sa bopp mën na la pousser ci soxoraay gi jël ay doomu sénégalais di leen rey maas sans tant nga xalaat eh sans xalaat ne yaa ngi am doom bu oversize bii yi di dem Amadou Sall nga am doom bu retardé jigéen ka nga xam ne day yuut di teen di dem rek di teen di dem mel ni mbaam bi ñu mbéj bàyyoo xel ne am nga doom bi nga xamante ne benn côté nopp bi du dégg bu yow ñett la la la atemit may ñoom ñëpp normal ñu including sa jabar bu naanoon ay comprimé lu yow yaa nga ni yow da nga dem ba xam xanaa gisoo li nga xamee yow fu mu ne da nga confus da nga jaaxle tellement nga dem ba sa doomu. as président deuk nga tok ak say morom président yow ñi lay humilier di la waxal ok man dal bama gisé fi comme ki wax ak sa sa cuuj sa ah eh, eh, sama xarit bi mi ngi ah, prépare dans deux mois day tàggatoo dem ya ñak fayda yow yaay jam deug yaay maccu do pire xamna hal plari bañ doon ba maccu da def na ndal bu mujjé bi ci mat fu màcc do yep raxaso genn ci màcc do yep ci keul bu ñu raxasee seen loxo duñu duñu ay màcc do raxase loxay makisal yow Macky Sall yow keul gog la sey juroom ñaar maam jël naan dessal la nga naan ci do yaay màcc do pire màcc do yo amo class yo ñak nga fayda yo amo dignité yo soxor nga yo dem nga yo mën nga naan deret ñame nga naan ban ay yuur bay mocc señatu ay squelette jaa Yo toogoo sa xalaat ne lii def Sénégal yépp yow xalaatoo ne danga war a buub sa as njaboot yooju di tambambaalu nga ne la ñañ takk seen bagage ñu commencé ñàlli yow yow xamoo nga def xanaa xamoo ñooñ nga fa teg toroxal parce que ku ci nekk da nga ko téye otage ne ko da def lii maa ñu ne te ñooñ dañoo muus dañoo muusul bi ko suñu muusoon ñoom dañoo xamul menace yi leen di menacé nii te génn ñu wax ñu wane carrément da leen menacé du ñu rëcc mais gis nga bu ñu muusoon def na juge saabali fay ba mu taxee moom carrément def liggéeyam parce que ba muy jàng école yow sa participé woo ci cotisation bàyyi ji mu ngi koy jëndal ay livre di ko fayal ay école pour mun a am exploité moom noonu la jom non kooku fulla la am te dox doxat divan yi mu ne la carrément sa nonsense boobu du sa jaam bopp du sa jaam dama lijjën sa jaam yi mu taxaw def lu mu ne kooku ñemewu leen ko laal fu mu ne nii kooku laal ko mooy uññi ngeen seen bopp kooku dafa rëccal boppam xam nga utee na ah, ñeneen ñi ngeen di liggéey loo pare ñu ne tekk ñi defee na ñoom lu ñu noppee def liggéey bi dañuy rëcc après ñoo ñëpp ah ngeen ñëw liquider par benn benn. gis nga ñeen mii Macky Sall mii di yónni ay nitam ñoo menacé leen wal leen ay li leen di li leen war a reyee ngeen ne parti def liggéey bi yéen muusoo leen da war a exposer seen bopp. da ngeen war a wax boole ne carrément lii la ñu wax ngeen def sinon da leen rey boo leen tegee ci biti rek du ñu amati droit laal leen parce que déjà. da leen a da leen a use da leen a point accountable seen bakkan loo leen munta daal def ñooma waaye bu ñëwee menacé leen ne defal liggéey bii nga tooy ba nga dee koo nga defe ne da lay rëccal maanaam moom lakk na ci tuun ba ma xam yéen ñëpp ay xamandoo dem bee boo ngeen takk seen bagage yi takk seen bagage yi dem ku ci mën a daw dow léegi ku dekk Guinée na nga dellu gini seen jaabere boobu bu munee jël ay supersam yooyu mel ni diriyanke bu taxaw sol tubéy na waaxu dem Guinée julde demal Guinée nga jaay eh, feene daw depuis léegi de because sama njaboot gi le 17 le 17 ñoom ñoo ko moom xanaa gisoo leen de numbers nee naa leen ajumaaw nombom buntu du ëpp Just check it out. Look at very well. 11, 17, 23. So put all this number together. 11, 17, 23. Lum lay 15 ci 15 bi mu jox la numéro 6 bu leen sonal seen bopp lu tuuti rek laa leen may Tak leen seen bagage yi nga dem ayum ko li yep li li am ni du xalé yi ñoo ko tek de xalé yi dañoo dox liggey ak yow xex ak yow ci lu mu sété wiic yow kay ya def sa ñeñu yow ya tabax sa toroxal yow ya installer sa toroxal yow sa gangor oh is not sama doom yi no li nga tek tek nga display ko any corner That's what coming back and kick your fat ass. yo Macky Sall la leneen ñun defuñu la dara sagum no we don't do anything Then you're loo with loo implant mu sax ba màgg dafa jot pour nga It's is already Lolo moo nekk bi ñëwa ah. yow yaa all dis yow yaa ko implant xale yi ñoom boo tegee ñu naan non non it's not like that ñoom implant ñu ent la doo dégg bi ak na leer mais yow lu lëndëm ak dere yi nga teg yëpp dañoo ñor deux ans yi deux mandats yi yee yooyu ñu ngi soog a ñor et puis mënoo ko bàyyi foofu danga koy lekkaale parce que yaa ko jëmbat donc il faut nga lekk ko yaax sa gàngoor you guys have to finish it il faut nga lekk ko mu jeex nga dem ak moom. gàcce bi nga biir bi nga implant Sénégal gàcce boobu moom nga nekk di encaisser you put it right there so ñun lu ñu def ñun kusaan gungee xale yi protéger leen parce que dañoo am seen ndam judduwaale ko ñoom dinañu judd rek taxaw doon victorieuse parce que dañoo xam ne dañoo gagné pare moo tax xale yi dañoo muñ gisoo lu leen atee mit cadre leen seen xeex ngeen bëgg xale yi fu ñu leen bëgg ñu yëngatu yëngatoo ñu fa de atem bi na leen calmer leen ngeen toog xaar donc nag léegi nag cooki fin bi ak moo bëri façon xeex dangay xeex ak divin yi xeex ak yi sa yuut quatre combats nga am si baakiir naka lañ koy compter ci xaat plat goota Nanny. Bon, I ñeent fight ñi nga war a jàkkaarloo ci terminus bi foo <laughs> divine suñu ancestor yi kusaanu mag ak population xéewoo it's really serious Macky Sall fii nag lañu la doon xaare now comme yow da nga am say terroriste nga am say tëg nga am sa sa armée terroriste make sure nga préparer leen very well parce que ñun tamit ci armée boobu am nañ ci suñu nit am pagay. ci marins yi am nañ suñu nit am pagay. ci faaya fayda yi sapeur yi am nañ ci ñun da fépp lañu am xeex bii Sénégal yépp ay taxaw first small group of people It is what it is. parce que cooki bi it is divine te dañuy xeex ñun pare nañu léegi it's up to you ndax pare nga parce que dama gis ngay lëndamal kanam nga xëm-xëm kanam bi xëm danga teel a xëm xanaa dafa tàng torop li nga teeg danga teel a xëm Macky Sall danga jeex ci saa si danga teel a xëm amal fit confidence nga puraat wool say li nga tàmm del tuut deret rek suulal say nag comme niñ ko gëmee yow sa bopp get ready game is over since day one time moo jotutoon now time is up either you pack your shit with your small tiny group of people to run away comme niko ko président Jammeh waxee find a big wise door to get out from there and run Run when you have leg to run Macky find your way dawal loo mun bi nga ay tànk pour because you cannot challenge the will of the universe the giving of atomic never never munoo taxaw jàkkarloo ak the give the chosen one of atomic ah that's a liar bu sonal it is what it is the chosen one is already been chosen et puis dafa file, mu mu face to all the challenge and he take it as a leader ñun jamaat mus ñi bow for a slave master master ma a slave danga mus a dégg ñu jamaat dafa baaw ci slave master yow say bàyyi sa ñu la coloni sa ñeme ñu jamaat masama yow mi maccu doy bu gën a mat ci ñàpp lépp lépp bu macc doy bu gën a yomb neex a jaay oyof tubéy asa yi mbàkk yow kan mooy baaw ci yow jaam gu mel na yow yow nga xamante yow gëmoo sa ni say say say bulu xuur sa yaa moom pour yow sa masam sa maître Macron mi nga am amul ay bulu xuur moro ko abal yow yow jaam bu mel ni yow kan mooy baaw xanaa màcc doy mel ni yow Macky Sall da a gis jaam bu am baat yow sénégalais jël laa teeltoon a xam ni def erreur ba pare erreur boobu dem nañ ba baalu président Wade ñu ñu ko they ask forgiveness parce que yow da laa utiliser bouc émissaire ba pare muusoo ci that's how stupid you are Macky Sall how idiot knucklehead skunk bu nga doon You say yow say maître da laa utiliser comme bouc émissaire mais muusoo ci ab nak bu ponkal nga de kese la dese nga mbëkk fuuta yëpp daaneel ko jaam yoo xamoo ne li nga samp ko tabax ko he will come back your ugly fat ass hmm? takk leen seen bagage yi ngeen dem it is serious it's bigger than what you think Sénégal moo pare Sénégal moo pare yow déjà gis nga déjà loolu sa masta yi wax dañ laa limité ne bëgguñu sa chaos mu am Sénégal of course bëgguñu ko because chaos am senegal that mean it's end for them their business deal mm-hmm. so therefore ñoom lu ñu bëgg mooy just lépp loo xamante ne you have it in your mind is bullshit. Parang nga sa deux mandats find another way loolu leen la wax soo ñeneen ñi nga nekk di fuul di leen naan defal defal lii te waxoo leen dëgg bi ñoom nga nekk di utiliser parce que ñooñu tamit ay jaam lañu na yow parce que muur suñu waaye ku gis the time how the clock is rolling dañuy xam ne karma here is divine atamit moo nekk di liggéeyam ah. amoo choice amoo dara pepo oh, ko lenen lenen, ku nek dang koy solone solo ko garam boobu tak karfa taxo naan jis jis my foot ben joj la am the universe at a that's it period gam ñu pepo wok bi ah I don't think so ko yow la concerné parce que esclave nga match dom ponkal nga so mun nga gam parce que say dom yeb ay match doom lañ yéen nga non di ray sénégalais ba léegi yow avec ça war nga xalat sa juroom ñaari xel ne senegal Sénégal mi nga xamante ne jigéen da ko samp senegal mi nga xamante ne Sénégal bii senegal bu set la dafa nga màcc doo benn yow di ay ñëw fekk senegal ñaata mille sept cent ans ci Sénégalom yow nga ñëw yow miy màcc indi sa beneen philosophie wala beneen héros ci Sénégal xoo tawlu yu daal ñaari mandat nga laaj atemit pour wane sa ñaawteef atemit may la ko pour nga wane sa ñaawteef Yes, we got your message. Now, pack your shit and go. President Jame, nena la ni. daf la passing de nee la yow ya wane. nga ñëw ne dangay japre di Gambia Fekal nak? Bangkotane? Do gor tane doo góorgóorlu ndaxte gàcce ba tegal la Bo President Jame bo mu di naan tiyoom wala mi mu tok fo di di bu nuka bom. boom bu wala mi bi. mu toog di la seetaan ci télé di rey rek te du wax moom nekk di dafay toog di rey rek mu ngi toog di téye nii bunkaay wala bunnuka wala euh, moom bati ko saanu ma ma ko mu ngi rey rek dafa toog ci piliyaan bantu wóodin bi bu jamaati mu ngi toog di rey de bu nekk bu tegee sa nii day rey rek because moom xam na agaanaaw bee gaani at man bu ma doon yow damay am fulla am fayda président Jammeh passing bu ma tegal naa def la tout ma réussir ci tuuti at least nga lépp danga feel lépp lu mu la tegal li nga rey moom mi toog vingt deux ans di Gambia koodo koodaatoom jegew ko li nga jaxase Sénégal moom mi nga doon tudd koodo koodaatam jegew ko li nga tas yàq Sénégal ñàkk kaa développé ñàkk assuré Sénégal ñàkk leen a protéger président Jammeh koodo koodo ko président Jammeh moo tax Gambien ni di juddu Gambia président Jammeh moo tax Gambia Gambien bëgg dëkkam Gambie avancé développé président Jammeh moo tax jeune Gambien ñëpp ñi xam ne ndekk lépp mu nga Gambia Gambia alal kese la président Ndiémé ñëw jox Gambien ni seen confidence gëm seen bopp pride dooleel leen développe dëkkam jël yuutam bi mel leen kaar ma yeneen avenir ëllëg di Gambia yow nga ñëw def di appiset yow sa yuut bu ëllëg nga jël yépp rey leen dugal leen ci ay gaal tiire leen rey leen dugal leen ci yow da nga massacre massacre sa youth hmm. xam nga ne woon naa la jamaat moo jur àdduna bi moo tax ñun xam ñu xaaj xaajoo ñun doom bu ñëw ñu uuf dangeen su ko jóge feneen fa ñëw ba foofu sànni doomam ñu uuf jël yar ba mu màgg ñun xamuñu kii sànni na fi doomam jël leen yóbbu leen ci opitaal nga jox ko déedéet dañuy jël sang ba mu set jël moom uuf même boo amul meew sa nga dem jël ràtt ci béy yi di jox xale bi muy naam ñun xàmmee ñu kan lañu mom ak ku ñu moom parce que benn jigéen jamaat moo jur àdduna gi yëpp ba sinuwaay yëpp ci moom la njëkkee ñun dajale lañu xam uuf ñun fu dëkk fan dañ ñun ñu ku pumaak ku jamaat ak ku tibbaak ñun la soo ñuy laal xamoon nag because say maître bañ ko jéemee mënuñu ko yow ci nga wa yow waroon a jéem yow yu lépp liy ñaaw lu nit mu bëgg def nit you did it yow lépp li ñu doon utiliser jamonoy esclavage di ko def ay nit pour récupérer pour jàpp ay jaam you are champion to yow yooyu yëpp nga appliqué Macky Sall loolu yëpp nga appliqué sur sa population of Senegalese people amuloo desal sa maître da la jàngal comme lu ñu def sa baay sa maam yi da laa woon carrément nii lay pare yow ñëw ñu war la carrément lay def yow nga ñëw appliqué ko si say nit déet waay mu am quelque Haalpulaar yi nga xamante ne dañoo màcc ne yow ñi def na yow li ngay def is da tur bu rafet la ci ñoom te xam ñu daal ni yàq because ethnicism du fierté ethnicisme du titre Je suis un salte ci adina te nak drapeau bu bari war xex moy parce que la majorité is recognized as a terrorist group donc Nous yow nga dignité comme ko nga as sa bilan fekk ay salte sen nga bugg leen mettre déedéet comme yow ni nga sax xam ne yow sa baay sa juróom-ñaari maam yëpp liggéey ñu ay màcc de pire lañu man parce que baaba bu mu goreel la sa quel sa quelques cousins yi yu nekk Fuuta baaba moo leen gore mooy goreel sant yi pour génnee leen ci mbuumum njaam gi histoire sa famille yëpp lañ ma wax lépp la ma baaba wax say yeneen cousin quelques cousins dañ leen dañu goreel seen sant ñoom su rus nañoo taxaw naan ay cousin lañ ngeen dañoo ne teg te ñu ngi Cees teg la ñu def bëgg sa bokk yow dara parce que du ñu ay màcc doon dee therefore my dear big màcc doon faat màcc doon Macky pakkal sa bagage yi nga dem it is what it is Sonko mi ba ko doon laal boo tàggoo mënoon na am xëy na nga xam ni ngay doxalee wala nga woo président Jammeh ne ko carrément na la baal mais na la wax tuuti ci ràqam gi ajuma Sonko doomu Sénégambia pare d'origine Casamance xëy na moom mun na la may tuuti lan mooy de symbole de significat la moto ñu naan ñu ko jamaata ko ñun ñooy muñkat yi ñooy ñun ñooy dox ci kaw ay butéel xottu butéel miy bënn suñu tànk miy nàcc te dañu ne siis parce que dafa am lu ñuy jëli ñun ñooy dugg ci xal gu booy ñu war a jël danañ ci dugg miy tàkk miy saf mais il faut ñu jàll jëli li ñu li ñu war a jëli. ñun ñooy ñi nga xamante ne ñoo dee gën a ñooy muñ fa muy gën a méttee ñuy sourire moo tax suñu di dem danse ku defee dañuy fecc da ngay nax sa bopp jamaat biy fecc ak rythme il faut nga doon jamaat piir nga déglu baa nga xam fan la ñuy waxee ñun bi ñuy biy métti sa dañuy woy bi ñuy pare xeex sa dañuy woy victoire buñ ko amee sa dañuy woy ñun bi ñuy jooy sa dañuy woy seetaan ngeen quelque gis ngeen ni ñuy doxalee jamaat mooy ku juddu rek fier parce que dafa xam ni que dafa victorieuse ay nit yi victorieuse lañu moo tax ñenn bu ñu gisee ñii dañuy fecc rek ah way ñii dañuy fecc rek because ay jàmbaar yu juddu victorieuse lañu suñu rhythm is a power spiritual power of fighter di xamal ni que sama njaboot gi le 17 seen bos la le 17 is your victory le 17 is your favor le 17 keroog le Sénégal ñeneen ñi quelques match di xam carrément the chosen one and the universe already have chosen Sénégal has chosen and Sénégal has spoken It's one and only one mooy yéen sama peuple sama njaboot sama youth you guys are the victorious game over Sénégal jox na leen yagna yàgg bu ne amoon ngeen victoire bu ngeen fii yëkkati woon ne naa leen tout le ñaar la seen numéro tout le temps day tëju soo gerdee di ngeen fago ci sama xale yi seen mag yi am na lu leen yónde woon pour seen protection balaa ngeen di génn naan leen ci ba pare ngeen téye ci ku ci nekk lu tuuti lacrymogène fuñ ko sànne mu saxaa rek naan leen guux loolu day rey poison ba pare da leen ni refresh day refresh lépp ci yéen sen katan ngeen avancer xex xam ngeen baa fu may waxe lolou jëndal na leen ko bu yag ba jox leen ngeen armure parce que ci fin lañu dem sen mama paré na demb tay sogo ñew ñun paré nañ bu yag parce que xam nañ fu ñu jëm na sama jabot ki ku ci nek commencé leen defar beñe yi ak sachet ndox yi ngeen armé parce que lu oyef si sen sakk wala sen posé na oyef dal bu ken lek xey ngay lek 70 dafa nine te diwlin yooyu googu ñu leen di indi Sénégal baaxul diwlin boobu dafa rax pétrole soo jaru lekk sandwich beñe yi nangeen ngeen defar beñe yi xale yi def ko ci sachet yi ngeen tey lu oyof yor seen mbuusu ndox ba pare bu leen fàtte seen protection bi leen jox noonu seen seen mag yi jënd nañ fépp yóndee ku fu ci nekk ay litre bari séddale leen ko jour boo leen jot jóg dem guux leen ngeen téye tuuti fu ñu sànnee mu saxaar de guux koo leen gis saxaar dugg na ko muy miir sa sotti leen ki gémminam na guux da koy refresh dégg ngeen ma donc cooki fin te ñoom ñoo koy provoqué dóor fayu ci fin bi lañu nekk Sénégal yéen a ko moom te Sénégal moo leen jox ate atemit jox leen kàttan ngaa victoire bi taxaw kër jàkkaarloo moo jot magax ndaw kenn du toog bii xeex moom kat xeex la gaa yi am jaam lañuy dañuy soo dee foo sama jabat bi di leen naan mbeeraa até Mikko Sano